naa si yéen fugg fa dàll seet dàll saw si duus bi fëgg dàll def yëpp duñu sax yëngatu sax ñemewuñu ko def yëngatu sax ñemewuñu ko def tapit yi ñu nekk yi comme ak comme ñoom ñëpp rek ay femmes surtout jibi moo gën a nekk tapet yow ñëw naa saw saw leen saw naa leen

loolu bu ma leen waxee loolu di xeex day ñu xeex yomba na waay foog ñu xeex ak du ñu bi foog ñu xeex dañu saaga yéen rek alhamdulilah rabbil alamin ma mu ngi nee ma def lu ma man parce que munu leen ma def lu ma nakar li ngeen def yëpp di création di ma jéem a katal ci ker gi di ma jéem a indil problème yëpp xam naa munu leen ma leen ma indil problème man man munu leen ma indil problème su ma rombee doole ma nuyu su ma xëyee du ngeen ma nuyu seen lekkal ngeen téye seen ndox ngeen téye seen naan ngeen téye ngeen ju ma jëndloo ay ay sàmm xar sàmm xar ngeen ma jëndloo yaa ngi dégg yow nag yow yow betta nga ma yow jibi yow betta nga ma betta nga ma ba si betta fu mu mu ni yow betta nga ma nag defe yaa ngi yow man tey nga eh. xam defe yaa ngi yow eh, yero eh. defe yaa ngi jël mbokk jàmbur jëndi sa mbokk yero jaay se mbokk man sa nijaay la jàmbur xam ko je ma pour di jaay yaa may dégg je ma pour di jaay yow da ngaa xamadi yaa ngi da ngaa da ngaa romb ñëw dugg fii fekk nit ñi toog nuyoo woo sa ñàmb lu tax lu tax nga toog nga ñàkk toog nga dem nga bañ a dem concerné wu man dama la multiplier ni zéro. man damay dem man immeuble sax laa la jàppee. ci kër parce que man fu mu ñu ma du ma du ma du ma àlla puti de. demal man damay dem sama yoon. demal kër gi laa leen di kajal loolu ngeen bugg moo tax ngeen téye seen bopp di ma jëndaloo ak ay kar. pour taxaw demal. yaa ngi dégg ay kar man nag munu leen ma katal man munu leen ma katal. te maa je vais aller je vais faire les retours. maa ngi dem Fouta. yow di fuuse di nga ñëw fuuse yow boo ñëwee fuuse di nga takka foofu day bu toll nii. comme eh! immeuble. Eh, xoolal eh, yow xam nga a xam du ma sa morom. dugalal loxo bi yaa ngi may dégg. dugalal loxo bi gis nga boo demee Fuuta. man ni nga dugalal jamono bu ko dalee département Podor ba région bu Matam. dugalal jàllal ba waala de yàq fa sama der. sama fee nii soo nii froid. yow da nga xamante. na sama jokkoo da nga xamante da nga réew. da nga tof sa jokkoo bi na ma dugalal waaw. Oh, tu Zepou da nga réew ah. yow eh, wax nga gis nga boo dof dof la dama lay dóor ba nga dee léegi. waaw yow yow da may dégg. xanaa da nga may neexal da nga may jox kër ak kii nga dóor ma. yow rey nga ñu fàtt nga ñu kenn amul jàmm ci kër yow fatama kenn kenn amul jàmm yow yow ba yero ba yero may nga ma jàmm yow. foo réer bi nga doon loo ma may yow xam nga ne yàq nga askan wi de yow. loo ma may vrai foo rien. sa sikkim pajaas yi loo ma may sikkim pajaas yi ah ay loxal man maa la dakkal loxo. wul soogi maa ngi dem yéen li ma leen war a waxal foofu dina dugg si. audience bi gënal gënal gënal gënal sax gënal. su ma eh, gënal leen sax gënal sax gënal sax. fekk ma ci biti ma nokkala nga xam. nga xam. kii lim lay woo buñ ko ci wuyu yaa ngi dégg kii xam nga ni dafa dof te lim lay sës nii dafa bëgg nga fekk ko ci. bu ñibé yak suñu der bu ko defee dootuñu fa jarati dara di moytu dafa bari de li ngeen di moytu bari na torop da ngeen di toroti ko di ngeen daw ki ki da ngeen ko mëna raw raw mëno leen ko raw lima ma gën metti ci wax bi nak moy ay katu kar ay afé lan lañ ma jëndé fi tous lan lañ ma jëndé fi moom kay nit yi dañ ko muntu ak wallahi ko muntu am mom dafa metti ki bu ko topp bàyyi ko. wax nit boko doko top dafa fekk fi ngeen jëm soriwul ki saaku yamba ca tuba yi sax kii moo ko gën a métti. dafa tardi ki dafa metti li pour la yéen kay bugu ngeen nek ak mom da ngeen munul am bugg ngeen ko da ngeen ko munul am. Ah. na dem Fuuta woote ber la fa wax lu ko ne. ñoko ñoo fofu lu o la oomam fa fan bojje bokom mooñee fofu ñoko ko kam hmm. na def lu ko neex eh ki yaa yay réaction di ki dal bu ko toog nga jéem dal nak li ma la wax si biir wax naa la ko ni ñu ma def dem jël ndijaayu yaasin jëndee ma ko ndax xar kooku xar la indi lan moo nekk xar ah man ma nekk nit kooku di jaay xar tax ñëw ñu jël ko teg ko sama kaw néeg bi kër gi fu ma taxaw ñu wax ma woy nii nangam nangam li ma la wax nag dama koy def bu ma demee Fuuta bu ma ñibbee ñoom jibi ak yaasin seen der dootul jar si Fuuta dara dinaa li ko deree wurusoogi tuggande gëde village yaade gueɗe sañce iwroy ha giya arta kadi ha Kas-kasen, garage sogi lay commencé garage wuri eh, doyna garage waaw yo da nga yabate ha yo gis nga bañ doon bok boobu juddogo waaw judduloo do fi ñew barki démb rek nga naan da ngay yak suñu mbokk waaw loolu du am touti nga ci touti nga ci dégg rek lima la wax man suma ma wax ma ni ma yoro am nga liggéey nga am nga xaalis jox ma ma jëndi xar dama koy jox am naa cinq cent mille dama koy jox muy dem di jël ndax lan xar la koy may xar bu mu koy may lan moo si jar mbokk yow sa nijaay dafa nam moo gën mbokk nijaay dafa nam xar laa la wax ah? na a xar lan la nammee xar na mën a xar moo tax muy faral puli kii dara xolal sa nijaay su génneewul xaalis da dadul jot xar ci moom gis nga kii yow dangaa war a comprendre yow yaay doom ci kër gi ndax sa nijaay ak sa yaay ñoo bokk ndey ak baay lu mu saña wax wala lu mu saña def yow la koy def mais du ko def ke ke léegi gorom la parce que nijaay jabaram la lan la koy wax. Eh, oh, ëpp na. aji yow gëj na la gis de. alhamdulilah gëj nañu gis. waaye ci lo ne. maa ngi néew dara gis nga. yow la def ngay yëfu xalé wa gis nga. yi tay yëfu dis nga def. <laughs> eh buma ma yi diko defat sama xel. loolu dara. wa ci lo ne. nam la. maa raw. ngi si jam. ma ngi ni ak señ bi. mi ngi fi mi ngi mi fi baax rek xale yi ma ne ko ñu ngi fi ëpp na xale yi gis nga ñëwaguñu ma lee gis nga nii laa weetee ba tey seen papa yàkkamte na école ne kamaj ah. mu gàddu leen yóbbu leen vacances ba ma fi man dong yow dong waaye de ngay fël falaale waa gis nga ëpp na <laughs> ci yaa ngi noos non bu boo ko waxul sax xam naa ko yaa ngi gis ndax sa kanam wane na ko wane na ko waaw kontaan naa nii nga nga man sama client bi yow ba nga war a xam loolu moom war ah? loolu ma war a xam man du ma xam loolu du ma xam loolu da nga war a xam nag bu ma yeggee garas wur soogi teg sama bagage deux minutes ma yegg gis nga bu mu yeggee sama yaay laa njëkk wax ak yoo yi xew bi yëpp li ñu ma toroxal di ma forcé néeg bi mu ak ballonnement ndijaay bi yëpp dinaa ko yaa ñaaw wax wante yaro xam nga man sama xarit nga sama xarit nga yow dama laa musa doomoo boo demee dimbale ma ngir yàlla dama lay ñaan yàlla na nga yeggalee sa ndaw bul wax sa yaay dara di yak suñu mbokk xalé du tas mbokk de mané ko xalé du tas mbokk de est-ce yow xam nga li ñuy wax ci tas mbokk ah xam nga li ci tas mbokk su ma ko waxee dina mer man xam na li ma la wax dimbalé ma ngir yalla dama la ko ñaan te yalla tax bul wax dara sa yaay man dina waxtaan ak sa nijaay dégg nga da ngay comprendre xam nga sa nijaay comme ko bo gisé mu lay wax yenn yow yow la jur amul ci ké sañ-sañ ci yow la am sañ-sañ dégg nga li ma la wax xam nga lan la nag bul ma waxaat ay waxam ah. kooku moom yaa ma gën a xam eh waaye bul wax loolu moom da ñëw na fi tase naa ko man lu mu waxul amul loolu kay boo ma ko xam naa ko ndax xam naa ne lim la wax yëpp doomu ko mës a wax ah. <laughs> waaye li yàlla xam doy na doy na waar daal hmm. wax na ay waxam daal. Hmm. ah man daal jombi naa. sama der bi sama yaram bi mu la yor di ko tong tongee di jën njeeru xew na mu ko neexee la koy defee. doy na waar di ko buruj baraje normal waaye moom la rek. moom la rek moom la rek. bàyyi ko rek nga ko. comprendre ko rek. kooku ci comprendre ko dëkk di <laughs> comprendre ko dee tax ma fat ko ci sama kër gi mu may def lu ko neex di ma ko neex. loolu ah, ëpp na bàyyi ko ci biir. nga comprendre ko rek yow. Ah. comprend ko rek. man kay dinaa ko comprendre ndax xam naa am na loo denc loo mënta wax. ah loolu nañ bàyyi bàyyi mu sedd sa client la man xam naa lépp. moo lay indil bagage yi moo tax nga bàyyi mu sedd naan ma ay muñal ko ko yow am nga melokaan xoolal. muñal ko rek madame Tall waaw ba fan. ah. moo xaw naa ko dégg. defal loolu dégg nga. wax sa nijaay. dama a dégg rek waaye gis nga ñoom ñoom dañu ma jëndloo kii. yow loolu laay bañ nga wax dañ ma ko har nak gënuma har gënul yow yow yaay xar da nga nam xar yow ah yow yaay so pullo ardo borom nak ak meew yow xar dala dala saf ah yow yaay mom xar yek nak yi di bo demee na nga nopi bul wax dara man dina wo sa nijaay dina wax ak mom dégg nga ah pullo demal comme kapan bañ nga yendu demal man sama xol moo tànga mau tax ma wax la ñëw expliquer la yow sama yaay nga sama yaay nekkul fii yow ma nekk sama yaay man su ma xamuloon ni su ma wàccee këram nii mooy demee ma wàcca fii man ma wàcca fii man wàcca fii boo demee julli ji ba ñëwaat nga wàcc sama kër mais instant bii moom foofu rek ngay mën a nekk parce que ñun ñëpp benn lañu doo jóge ci moom di ñëw fii defu ma ko benn fukk lañ fukk laa ko def defu ma ko benn fukk laa dafa sokor sokor sikkimu sikkim bi boo ko xoolee sax da ngay xam sikkimu sokor la sikkimu nit ku bu xaraam la baalal ma waruma la wax sax moom ndax dafa xaraam waaye sa sama nijaay imbécile la xamuloo si loolu imbécile la sama nijaay imbécile bu mag la